mu toll nii ñu bari ci ci làmb xam nañ euh, dëkk bi euh, dëgër na làmb ji metti na ñu ngi wax ci affaire euh, mandat président Alioune Sarr bi nga xamante ni war na jeex le 30 wala le 31 ban gis-gis nga ci am en tànk que mbër. waaw gis-gis yi ma si am mooy na ku nekk xool intérêt làmb bañ a xool intere boppam parce que lu mbooloo bokk bu ko kenn bëggee jël moomee ko boppam rek day metti mm-hmm. te xamalu ñaari nit wala yeno boo ko kenn yenoo rek mu diis. waaw CNG bi Alioune moomu ko Tyson moomu ko Keba Kanté moomu ko keneen ak keneen moomu ko ñun ñëpp dañu ci am wàll na ku nekk xoolee wàllam xoolee wàllu ñeneen ñi bañ jël sa wàll jël wàllu keneen parce que dañu war a bàyyi xel ku ci nekk si ñun muy mbër bi di supporter bi di amateur bi di promoteur bi di manager bi ku si nekk dañu war a xool sa intérêt ñu teg loolu doxalee noonu CNG. parce que tey bu fekkente ne mbër yi gën ñu gis seen bopp promoteur gis ñu seen bopp làmb ji du dox su promoteur bi gisee seen bopp mbër yi gis ñu seen bopp làmb du dox amateur yi bu ñu gisul seen bopp làmb du dox. léegi yow euh, en tant que mbër euh, élection yi boo doon boo boo doon voté kan mooy doon sa candidat. su ma doon voté nii nii nii nii nii pour CNG bi man je préfère voté Tyson. foo ko teg parce que au moins lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw takk na ngemb. xam na lan moo am ci bés xam na la moo am ci biir géew xam na la moo am ci làmb daaxuma Kéba Kanté nag parce que moom it xam na làmb mais ki takk ngemb ak ki takkul ngemb mënuñoo yem sama xalaat bu gàtt quoi Tyson lu mu dee dee moom bëri na avertir nañ ko dagg nañ xaalisam dóor nañ ko xam na lu bari ci làmb dem na fay xaalisam sëriñ leneen ak leneen ak leneen kon moom bu diriger affaire bi dina ko war a mën a teg ci yoon parce que xam na li am ci biir. mais est xam nga ni làmb du du du diggante bëre dóor bëre simple làmb dafa doon sport boo xamante ni dafa am lutte olympique lutte gréco-romaine lutte plage loolu yëpp yëpp yëpp ku maîtriser lutte avec frappe rek est-ce que mën na diriger loolu. no xam bu buñ ne diriger du Tyson kese moom moo war a mën a diriger. tey buñ ne Tyson na diriger lutte avec frappe bi ñu ne tey Yékini exemple na diriger lutte simple bi ñu ne Moustapha Gueye ak Boy Kayré lutte lutte sable ya yeneen ak yeneen yi day dox mais Tyson kese bu ñu bëggee jël benn Tyson kese joxaat ko ko day sonnaat bu ñu bëggee jël benn Kéba Kanté jox ko ko day sonn il faut ñu maanaam tas ko jël keneen ne kii yow yaa jiite mais ñi ñoo topp fii ñi ñoo def lii ñi ñoo def nii parce que président mu ngi nii moom mooy président Sénégal Macky Sall mais dafa am ay ministre fonction bu nekk dafa am ko koy gérer di ko rendre compte ñuy xool nu ñuy doxale affaire bi noonu la war a doxee mais bu dee dañ ko bëgg jël jox ko benn nit kese yéen ko ko day metti day metti ku dul Tyson sax mënul loolu il faut ñu jéem ko jël tasaare ko seen biir mais ñu ne kii moo diriger mooy président bi mais yow yaa géré nangam yaa géré nangam yaa géré nangam comme ça secteur bu nekk dina mën a dox bu doxul kooku lañ ko yor kooku la ñuy joxoñ parce que tey làmb ji sport bu doxul Matar Ba la ñuy joxoñ leneen ak leneen bu doxul ministre ba ko yor moom la ñuy joxoñ mais terewul ñëpp dañ naan président kon loolu mënul ñàkk quoi mais buñ ko bëggee jël jox ko beneen nit rek na diw géréel diw moom mënut a lépp. parce que amaana ba moom xam-xamam mën naa màcc si wàllu bëre dóor mën naa bañ a màcc si wàllu bëre simple am na solo xam-xamam mën naa bañ a màcc ci bëre dóor mën na bañ a màcc ci bëre simple muy xeer ngor numéro 2 doon champion boo xamante ni tey moo tax ñu déplacé wu ñëw seet si ko euh, ngir waxtaan waaye ba tey ñu ngi ciy gis njariñ boo xamante ni mbër yu ndaw yi ñu ngi koy am ñu ngi leen di gis ni euh, vraiment euh, seen niveau mentalité mu ngi yokk te ay jàmbaar lañ ay xale yu am gëm-gëm lañ tey dama la bëgg laaj ñetti question yoo xam ne bu nekk dama koy boole làmb ji kan moo ci dàq bëre man. boo teg loolu. maa xam ne maa si daax a bàyyi ma waay doo xam sa bopp Balla Gaye ne fi Modou Lo ne fi Eumeu Sène ne fi Boy Niang ne fi Tapha Tine ne fi nga naan ma yow. sama bopp laa gëm de nga wax ñëpp d'accord naa leen seen champion mais damaa gëm ne maa fi daax a bëri. a ngi nii maa fi laa bëgg ku si xëy da ngaa bëri histoire maa fi daax a loolu laa gëm keneen ku gëm leneen nag yow la. làmb ji boo doon xool tey ci seetlu kat moo fi ëpp mystique. ku fi ëpp mystique man. yaa gën a ëpp mystique Balla ñëpp maa ngi ëpp mystique. Modou Lo maa ngi ëpp mystique. Eumeu ko ëpp mystique. man de kii ragal naa ko tey. mais est-ce que jàppoo leen ni mbëri ndaw yi am nañu fuuy Modou Lo di def ay trente millions ci mystique Eumeu seen di ci def ay quarante millions Balla Gaye di def cinquante millions yow nga ni deux millions nga def si mystique ne yaa leen ëpp mystique. yow koo yëpp yaa ngi lu bokkul de. bari sax am mystique bokkul de. xam na ñuy def 10 millions nit def 5 millions daan leen. boo amoon mystique doo daanu doo am 3 défaites xaw ma 4 défaites doo bàyyi sëy ngay def kon ñi la daan ñoom lan lañ. ñi ngay wax noonu dañoo am mystique daanuñu ay Balla Gaye ak ay keneen ak keneen daanuñu. mais daanuñu daa ay daanu sampion yi commando di wax ay teg ans <laughs> ay rëbbkat am ay daanu champion waaye daanu daanu jaaxaan. daanu amul man daanu ma soo maa daanu jaaxaan. noo daanoo. man 4 appuis. jël champion la. jéem a 4 rek. kese kese. sama ngem benn yoon na mos a laal suuf. ku ko laalal. Sidi Diame gën. Sidi Diame gën kon moo la ëpp gàllaaj nangul. waaw d' accord naa mën na ma mën na maa ëpp gàllaaj ci nii nii nii mais sama gëm-gëm laay wax. non ñoo la ëpp gàllaaj da ngay nangu nag booy. ah nangu nag sama waay xam ah. nga nangu xam nga ma ko nangu. ñoom dañuy dem fay ñu defal leen man fayuma te maanaam gàllaaj gi daal ci yow la ne daal ci yow. samay waajur la ne. ñoom ñooy def jox samay yaay moo may ñaanal. ñaani waajur moom sa sa gàllaaj sax boo taal sa loxo bu jaala sama ñaani waajur moo gën a foor lépp lu benn sëriñ di defal keneen moo tax may la may ëpp mi bëri yëpp xaaj bi yëpp am nañu ay ñaani waajur sama bopp laa xam de bëri yëpp sama bopp laa xam Balla am na ko Lo am na ko Eumeu Sène bu leen neexee ñoom ñu toog ñu wax ñoom ñëpp am na ñaani waajur waaw d'accord na mais man dama gëm ne sama ñaani waajur moo gën a foor ñoom musique bi ñuy def loolu laa gëm ku ne sa gëm-gëm loolu laa gëm léegi booy ñëw làmb bul takk dara bul takk dara bul laal dara demal say waajur ñaanal la nga ñëw ci làmb ñu nga xool. ma wax la benn affaire boo riiree si man. barke Cheikhou Tidiane man dama daan dem Mbapat yoof billaahi wallaahi ay tambal xam nga tambal gum yooyu noir blanc yi. mu nga daan jël laxas ko sama ndigg ba mu fees takk sama ngeem mu dugg làmb ji toj ko. benn butéel daaw ma ko yóbbaale. billaahi wallaahi tallaahi mais làmb li ci bokk boo ko si jëlee rek gis ko. Mhm. am na loo xam te ne dafa bokk si làmb jëlee ak loo am ñaanu waajur am ñaanu waajur. daf ci bokk sarmo bi la aada bi la sarmu bi la te ñun dañu doon ay nitu cosaan comprendre nga ñun nitu cosaan lañ hmm. waa euh, ma ñëw ci beneen bi mooy kan mooy sa artiste kan mooy sa waykat boo xamante ni moom boo koy déglu boo duggoon ci oto bi jëm stade euh, day am leneen looy yëg man lu ma déglu musique looy déglu sikar rek kese kese kese kese man ay rafay mooy sama sikarkat su ma la heure bii la daaw laa ko woyoon ci bis beeg ci waxtu bi war na ma gis may santaate ko kan moo ko way xaw ko xam nga ko waaye bàyyi sëy ah, xam nga ko ah, booy d' accord léegi d' accord ay jàng rek ngay déglu mais xam nga ku way loolu barke Cheikhou Tidiane xaw ma ko way li ngay wax ni munoo nekk mbër nag xam li dëkk bi di wax xam làmb ji ñaata champion fi nekk ñi xeex ñi mën a bi moom doo ko déglu yow léegi loo bëgg a def sa bopp ibaadu wala imam wala euh, wala wala sëriñ yow loo bëgg a def sa bopp du question de ibaadu du question de imaam man nit simple laa comme ñëpp ah, li booy defi dama koy def de da li ñuy def booy li ñuy def lépp dama koy damay foo comme ñëpp def li ñuy def ak yow li ngay def dama koy def de mais xam nga xamaloo ma dara <laughs> li ma la xamal bari na léegi nga doon damay ee eh, <laughs> man maanaam dama doon nit koo xamante ne euh. man sama gëm-gëm ak sama bëgg-bëgg man topp ma sama nafsu bi barke Cheikhou Tidiane man duma ma déglu lu Aïda Faye bu ko weesoo bu weesoo Aïda Faye xanaa wayu làmb aw ma jot bi jël sama téléphone di si dugal ay son ay musique di ko déglu aw ma jot bi. am na solo man Aïda Faye kese laay déglu wala Ibrahima Kebe ay sikkarkatu Baay Ñas lañ. man damay dund bëgg Baay Ñas gi dama koy dund sama xool man lu waay bëgg ci man su ko jaaralee ci Baay am ko même su ma koy su ma koy jox ñàkk ko dootuma ko amati ba faw dama koy jox. bàyyi ngeen képp la man sikar rek laay déglu am na euh, ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom Xeeru Ngor numéro 2 tey moom laa seet si woon euh, ngir waxtaan ak moom comme ni ma leen ko waxee ma lay jaajëfalaat bu baax baax ci sa disponibilité ndax xam naa ne damaa jékki-jékki rek siif ndax damaa nam ma mbëri ndaw yi xam nga man maa ngi yow bokk groupe. non man dee na ma man parce que maa gën a ndaw si mbëri. waaw maay mbër bi gën a ndaw. di ñaan yàlla nag yàlla yéegal ñu si kaw parce ñun làmb dugg ñu si pour dugguñu si pour tournée rek am si tournée après mu jàll jàll noonu non dañ si dugg ngir teral suñu waajur dañ si dugg ngir teral suñu bopp dañ si dugg ngir nekk ay nit yoo xamante ne ay référence la ñuy doon ëllëg suñuy wax nit ñi di déglu li ñuy wax di si jariñu parce que nit boo demee ba am benn nit boo xamante ne boo waxee mu bàyyi rek war ngaa xam li ngay wax lan la boo demee ba am benn nit boo xamante ne soo ko santee mu mu mu def li nga ko sante rek war ngaa xam li nga koy sante lan la kon yaa may maanaam maîtrise bu ñuy mën a demee ci loo xamante ne lépp ak njub lay doon ba du ñu wax nit lu koy yaaxal parce que nekk tout tànk si jamono biñ toll nii di doxal sa sago ba ñu dugg ci yenn yombul parce que jamono moo tëradi mais na ku nekk conscient xam ne loo nekk xale xale xale lu sa jeunesse neex neex neex loo am xaalis xaalis xaalis da ngay màgget nag am na lu si topp donc dañuy bàyyi xel ne ëllëg dañuy nekk ay mag dañuy bëgg li ñuy wax ñuy déglu kon li ñuy def léegi bi ñu nekkee xale nañ ko xoolaat làmb ji dafa neex ngay bëre ñëpp wër la te lay wër la ngay wax dafa neex mais lépp lu ñuy wax nañ ko rafetal pour bu làmb ji jàllee. ëllëg mag day ñëw. waaw njaboot day taxaw njaboot day taxaw. bu ko bu ko bu ko père mbay Guèye ñaawaloon wala per du Less ñaawal ko mais per Falaye Balde ñaawal ko tey xale yi du mën a rafet ci ñoom. noonu la fa demee. am na solo am na ay mbër yoo xam te ne dañuy wax ay wax yu vulgaire ci làmb te jaru ko. yéen ay mayante xaalis pour benn tàkkusaan la après ku nekk dem. am na solo man du ma wax mbër mbër wax boo xamante ne day déborder. parce que dama lay jox cër nga jox ma cër bëri lañ séq avant làmb ji nag amuñu benn affinité mais man mbër yi ma bëri yëpp su làmb jàll damay jël sama téléphone woo la boo yëmbal damay jël sama téléphone woo ko keneen ak keneen dama jël seen téléphone woo leen parce que loolu mooy àdduna mënuñoo nekk ay noon ay simple adversaire lañ pour benn moment après day jee mais am na leneen luy ñëw si kanam loolu dañ ko war a waajal war ñoo ñaawal parce que man sama dérange bu ñu naan mbër yi ay dof lañ. parce que dama man dama gëm ne mbër moo gën a noobal ci àdduna man dama gëm ne mbër moo war a gën a doon intellectuel ci àdduna xam moo tax. parce que yow miy taxaw tele yi ñëpp ñu romb ñëpp ñaata nit nga romb ñëw tàllal ma micro bi pour ma wax. am na ñeneen ñu nekk fële ñoo war a mën a taalal bi ñu wax. ñu ëpp la xam-xam fuuf xam-xam fuuf. gën laa xam làmb laa doon mbër nekk gën a nekk champion. fuuf. Mm-hmm. kon soo ma taalalee micro man ma war a wax. li may wax war naa ci seet. seetantal ko xam li may wax lan la. pour ña koy déglu mu mën leen a jëriñ. mais su fekkente damay wax di wax nii pour mu neex rek. di sànni keneen taraak wala di minimiser keneen taxul ma dem ci kaw. Mm-hmm. tey ma yaaxal la taxul ma avancé. ma ñàkk laa yaaxal terew ma avancé. kon nañ ko rafetal. am na solo parce que làmb dafa dafa metti quoi yow nit ki mën ngaa bañ am benn problème ak kenn mais nit ñi ñooy chercher pour nga am problème ak nit ki ki nga xamante ne li leen boole taxalewu leen ngala li leen boole rafetal leen ko. maa santaat yàlla nag di wax jërëjëfe Baye Niass di sant képp kuy sonn ci man képp koo xamante ne yaa ngi per sa temps ngir man rek maa lay sant di la baalu àq di wax waa Ngor gépp ni leen man seen doom laa aw lu leen ëpp leen gën. su ma defee lu jaar yoon yàlla moo ma dimbali su ma defee lu jaarul yoon nañu xam ne xelu xale ma jàpp bu ma kenn jàppal dara ci len nañ may comprendre xam ne tout tànk laa parce que nit moom day juum mais maa ngi sant ku mel ni docteur Niang li ma defal mënuma ko wax barke alxuraan day sonn ci man di ma jël xaalisam di ma ko may Covid bii nii bu mu méttee dëggantaan dafa doon jël chaque weer mu jël xaalis jox ma ku mel ni Baye Boris moom laa doon liggéeyal. Mokhsakir Kébé dañ maa jël ba ci biir ñu ne mooy arrêté nga dem toog ñu fayal la waxuñu salle bi gën a seer fii ci code bi salle boobu noonu chaque mois cinquante mille la ñuy fay. ñu fayal trois mois pour ma dem entraîner ji xam nga ñu may jàppale ku mel ni Karim Ndiaye borom black and white su ma amee combat jël ay trois cent mille quatre cent mille li ko may. si nga ku mel ni Amadou Gueye at yi meeru Ngor boo gisee man may bëre di mobiliser c'est parce que dafa am ñoo xam te ne su ma amee bés dañuy sonn ci man di jël seen xaalis di ko def ci man. ñooñu awma seen fay ku mel ni docteur ñaa wax naa ko mais moom à part la mais société am suma suma assistance sama sponsor la à part moom la may may la ma suma di jox loolu bokkut. yaa ngi publicité parce que daf ma ko wax nee na man li ma lay may man maa la koy may mais suma li mu lay jox warugar la ci moom mu di la ko jox parce que damay sol logo wu suma moo waral loolu. di sant nag sama booy yëpp ñi may àndal kii sama doom la Ibou jox numéro 2 sama doom la sama lépp la. yee am na komba sama jouru combat incha allah rabbi waaw mu ngi door a door mais di gërëm ñëpp di gërëm waa Black and White di gërëm sama gars yi ñoom Bacca Ambay Mam Sam Xaarim Ndiaye Jibi Diop ama Juma su ma limee Jum di gërëm sama gars yëpp yëpp yëpp di gërëm ñoom Ndoykan Mam Sall xama di leen wax ne fuñ ma teeg fuñ ma teg rek teg naa leen fu ko raw xama di gërëm Baye Seynou Karbala moom mi teg lu nice lii nii xama di gërëm aussi kii ma jox li ma sol l'international Makaay ot niveau bi ah moo ma jox lii nii di santaat ñëpp di leen sant yéen aussi si dérangement yi parce que bu leen neexoon ngeen ne ah saa yi tojul fenn mënoon ngeen ko wax te du dara du leen ci fekk mais dangeen di dagg seen essence ñëw fii rien que pour tàllal micro ma wax wax ju am te ne wax ju doyadi la kon maa leen ci sant di leen ñaanal yàlla yéen yéen a xam li ngeen bëgg yàlla mën na lu kawe loolu yal na leen ko yàlla defal. Eh, mbër kaay kaay taxawal tur bi nan la. Ibou Diop 2. Ibou Diop waaw. nga fas yéene dugg si ci arène bi kañ nga war a ñëw. incha allah si suuru combat si nga war a ñëw. waaw kan nga am. non amaguma adversaire nag mais ñu ngi koy dox. ba adversaire bi ngay jël di nga ko xam lamb ji booy dañoo mën a dóor de. ngor ngor la xool ku tooj li bal. xoolal sa ginnaaw. gis fii si ginnaaw. gis dañuy tax gan saako gan yaa ngi fii si xeeru ngor numéro un. dañuy dóorandi suba ba ngoon noonu ragaluñu dóor. Hmm. waaw mais làmb nag metti na yaa ngi dugg ci ci loo xamante ni lu metti la yaa ngi ñëw ci bëre dóor euh, bëre nga bëre simple waaw licence simple laa njëkk am bëre simple moom adré Senghor dem naa fa Ibamar poids léger Ibamar fépp àll bi bëre simple moom xam nañ ñu si bu baax a baax dóor amoon nañ ay retard yoo xamante ne moo ñu daaw amoon nañ combat am blessure hmm. mujjul antu ñu amaat combat covid bi dikk mujjul antu mais loolu yàlla dogalu ko woon mais ñu ngi lancé gars yëpp kuy bëggee Ibou Diop numéro de rek nga xaar ne incha allah yàggatul dara ñu ngi wàcc si. góorgóorlu dina baax. jaajëfati jaajëfati mbokk euh, mbokk yi kon. Euh, mbokk yi kon tey noonu la demee loolu lañ leen indiloon fii ci tund Yoff euh, wala Ngor ngir seet si ki nga xamante ne mooy Xeeru Ngor numéro de di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi ngeen ànd ak wasaare làmb naan sama ji yéene ko samay teraanga. teg sa bi bëre sëñ Bas.